Indagraf Sahel jaare ko ci service de dispositif am bile di ëpp it daal dinay dugal ay yoo xam ci xeexu mbas mi fagaru moo gën faju waral ñu daal di séddale ay kit sanitaire ay entreprise yu ñuy liggéeyandoor di maanaam ay jumtuwaay yoo xamante ni bu ñu ko jëfandikoo dina leen mën a aar ci doomu jàngoro jile di coronavirus ndajem séddale gi ma nga amee woon ci préfecture bu pikin Maguette Diallo mooy chef de service bu dispositif ëpp it bu Indagraf Sahel. ñun fii daal di ñëw jàpp ci liggéey bi nga xam ne moom la état du Sénégal di def mooy ànd xeex coronavirus ñun dispositif bi ñu yore mooy ëpp IIT bi nga xam ne ñëw na Sénégal lu toll ci benn at ba nu commencé liggéey bi ba léegi ci Dakar ak Thiès ñu daal di gis ne bi coronavirus bi ñëwee entreprise yooyu noonu am nan ay besoin yoo xamante ne wax nan ñu ko lu nu soxla ñoom pour seen personnel bi xeex coronavirus bi pour respecter mesures barrières yi ñu indil leen lépp lu nekk ci ay kit sanitaire yoo xamante mi ngi am saabu ci biir mi ngi am gel hydroalcoolique eau de javel mais surtout ay masque nit ku nekk ci ñiy liggéeyee foofu dinañ am ñetti masque am benn gel am ñetti saabu entreprise bi tamit ñu dote ko ci eau de javel pour mu mën di euh, désinfecter poignée yeeg euh, lépp surface yoo xamante ne fa la nit yi di liggéeyee. ci jamonoy mbas mi yile entreprise di jànkonte ki jafe-jafe yu tar mu bokk ci njëndu matière première yu ñuy liggéeyee lu ni mel moo waral service dispositif EIT bu Indagraf fas yéene jëbal yile liggéey liggéeykat ay avance yu mën a toll ci ñetti millions ak genn wàll fii ci Ndakaaru ak ci Thiès liñ ci jublu mooy bañ crise économique ak crise alimentaire ci mim réewa entreprise yooyu daat ñuy jox seen ay euh, jafe-jafe yu nekkee mooy pour jënd matière première mën ko stocké ci période bi ñu nekk tamit ñu daal leen di prévoiral ay euh, avance de trésorerie loo xamante ne dañ leen koy jox lu mën a dem ba toll ci ñetti million ak genn wàll loo xamante ne day dépendre ci effectif yi nekk ci entreprise yooyu pour permettre leen ñu jënd matière première ak ay emballage parce que bi wante tamit maintenir emploi yi ci bërëbu liggéeykaay yooyu pour éviter lépp luy crise économique et lépp luy jur tamit crise alimentaire bañ ba nga xam ne produits alimentaires yi manqué fii ci biir Sénégal moo tax ñun ñu tàmbalee xeex boobu noonu ci région de Dakar ak Thiès bénéficiaires yi ñu ngi toll ci euh, juróomi téeméer personnes yoo xamante ne ñu ngi liggéey ci entreprise yooyu entreprise yi ñu ngi toll ci juróom fukk entreprise ñoo xamante ne ñoom ñoo bokk ci ëpp IT bi. service su dispositif ëpp bu Indagraf Sahel daal nañu jagleel itam pàcc ju am solo lii di sensibilisation bi maanaam ñaax ñuy liggéeyee ci yooyu les entreprises ci nees def ba mën a mucc ci biir Covid 19. bu loolu weesoo tamit ñu defaral leen ay affiche maanaam loo xamante ne dañ koo def pour permettre leen ci xeex boobu ñoom ñu xam nan la ñuy def ba respecter mesure de distanciation yi parce que tamit ci entreprise yooyu di defar wàllu lekk li jafe mooy di am euh, li ñuy utiliser comme xeex corona bi mais tamit xam yan conseil yu adapté moom lañ war a am. pour xeex xeex boobu noonu ñu defal leen affiche yoo xamante ne mi ngi nekk ci wolof mi ngi nekk ci français nan ngay takkee sa masque nan ngay respecter mesure de distanciation yi nan ngay fóotee masque yooyu pour citer juste quelques exemple ñu defar ko daat leen koy jox gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñi ngi nekk ci secteur alimentaire bi ñi nga xam ne ñi ngi produire ñu continuer production bi pour éviter produits manqué ci biir Sénégal wante tamit ñu respecter mesure barrière yi nga xam ne état du Sénégal ak euh, ministère de la santé moom lay véhiculer depuis boobu ba léegi nii mënumaa daaneel te remercier wu ma tamit euh, monsieur le préfet de Pikine mi nga xam ne tey jii moom moo ñu permettre ñu lancer distribution bii nii ci préfecture am di koy sant di koy gërëm ndax tey premier mai la jour férié la fête du travail waane xeex corona moom moo leen yitteel yitteel Indagraf sayal moo tax tey jii ñu dajale fi nit yi daal di ñëw def li nga xam ne nii moom mooy distribution yi di remercier tamit euh, sunu partenaires financiers yi mooy AFD ak Fondation ak euh, sunu partenaire bi nga xam ne moom mooy teg TECDEV ak ñëpp ñuy liggéey ci Endagraph Sahel en général mais ci dispositif ëpp bi ëpp IT bi tamit ba nga xam ne bi xeex bi commencé ba léegi ak difficulté yi entreprise yi nekk jóge wunu ci nekk di jàppale entreprise yi que mu nekk fii Dakar équipe bi fi nekk ak Thiès tamit. ndaje bu ni mel ñu ngi ko doon amal ci kilifteefu préfet wu département bu Pikine Moustapha Ndiaye lay wuyoo muy xamle ni ndimbal bu ni mel daa dikk. ci jamono juñ ko soxlawee. ñu jaajëfal surtout Enda Graf Sahel ndax lii ñu def nii dañ ko def ci heure bu ñu war a defee mais def ko ci ni mu waree ndaxte tey fexe ba dimbali ay cible ay bénéficiaires am ñu continuer di mener seeni activité économique te du ñu am gàllankoor Covid 19 loolu lu am solo la te man sax maa ngi naan fi mu ne nii xalaat yi ak xel yi foofu la ñu war a jublu activité économique yi yu ci bari fi mu nekk nii bu ñu nekkul à l'arrêt ñu ngi au ralenti te mënul wéy di continuer du mel nii il faut ñu xalaat. ay xalaat yu bees ak ay jumtukaay wala ay jëfin yu bees ay nekkin yu bees yoo xam ne nii dinañu mun a permettre naam bu fi Covid bi nekkee sax mais ñu mun a relancer les activités économiques je crois que loolu perspective bu baax la te yaakaar nañ ne kilifa yi ñu ngi ciy xalaat. Enda Grave Sahel lii ñu def nii dafa dëppoo ak xeex bi ñuy xeex coronavirus mooy fexe ba aar ay cible am jox leen lu ñu aaroo. conseiller leen ci nan la ñu ngi koy aaroo ba pare jox leen aussi un appui donc loolu lu am solo la te fii Pikine comité départemental de gestion des épidémies maa jiite bu ñu ñëwee ne ma dañu bëgg nga ñëw jiite activité mooy ñi ngi jàpp ci xeex bi au niveau de Pikine ci ni mu waree. préfet wu département bu Pikine rafetlu itam bu baax a baax taxawaayu Indagraf ndax nag jàpp na ni defuñu lu dul ñoo fekk si nguur gi ngir dooleel ko ci xeexum biir jàngoro coronavirus. boo xoolee état dafa lancé guerre nag ko waxee mooy bépp doomu réew mi bépp structure bépp organisation da nga jàpp ci xeex bi da ngay jàpp si bopp ne soldat nga ñun démembrement état lañ muy administration Pikine Endagraf Sahel bu ñuy ñëwee di def lii ñuy def nii biir Pikine boole ma ci de mel ni ñu ngi jàppale état parce que ku jàppale département bi yaa ngi jàppale état te xeex bi ñuy xeex nii gis nañ ci seen taxawaay te fi mu ne nii loolu moom mooy priorité état du Sénégal mooy la lutte contre la pandémie ci le coronavirus actuellement nii mooy sur priorité état du Sénégal mun nañu bàyyi lépp ba mu des xeex bi donc boo ñëwee tey ne da ngay dugal solo ci biir xeex bi comme ni ko Enda Graf Sall defee man foo ma woo ma wuyu si la ndaxte loolu moom mooy ñu gën a amal solo fi mu nekk nii donc moo tax tey malgré que jour férié la bu doon dimanche la sax boo ñu woowee dinañ ñëw ndax fi mu nekk nii lu waaye def rek lii moom moo ko gën a am solo sensibilisation bi moom mooy toujours li autorités sanitaires yi di wax adopter les règles comportement barrière sanitaire fexe ba lii waa kër docteur wax neel buñ ko defee mucc ci contamination bi nañ ko def raxas ay loxo gel hydroalcoolique distanciation sociale toog seen kër limité déplacement yi loolu buñ ko defee dinañu gën a mën a arrêter propagation virus bi évitons les contacts et restons chez nous c'est ça le message. benn gis-gis bi itam moo rote ci bajjen maam Fama Mal moo di ne jàppale bi daal ci waxtam soxna Sile Mal mooy njiital suqali sunu gox bu Pikine rue ñëw ci heure am Covid 19 bi bi mu ñëwee ba léegi suñu liggéey dafa wàññeeku woon bi ñu adhéré ci ñoom ba léegi ñu ngi sant yàlla ndolleente rek lañ ci gis mais suñu ci wàññeent rawatina nag arrivé bii tey ñëw parce que suñu liggéey yëpp dafa dellu woon ginnaaw mënuñu woon liggéey parce que boo gisee benn unité de 22 personnes mënuñu toogandoo liggéeyandoo di liggéey à distance wala di ko def ay groupe tey bu ñu ñëwee indil ñu lii dañ ciy sant yàlla bu baax sax parce que indil nañ ñu ay mesures de barrière yoo xamante ni buñ ko respecté incha allah dinañ liggéey te suñu liggéey niñ ko bëggee dinañ ko amee noonu wax nañ ne dinañ am ci loo xamante ne dinañ ñu ko dimbalee parce que liggéey bi fi mu nekk ni dara amul ñu ngi war a jënd dugub war a jënd mboq war a jënd ay mbuus yooyu yëpp woo nañ ñu expliqué nu ne incha allah loolu dina mën a am te loolu nag ñu ngi ci sant yàlla bu ñëwee day gën a baax rek lii teew moom fi mu ñëwee baax na li may wax rek mooy ñu gën a jàpp ndax kuy raam di la yóbbu bu taxawee dina la yóbbu parce que ba ñu àndeek ñoom ba léegi ànd bu rafet rek la ñu àndeek ñoom avancement mais delluwuñu ginnaaw dispositif ëpp ité bu Indagraf Sahel yemuñu rek région bu Thiès nu ñu ko defee ci Pikine ak li ko wër noonu itam lañ ko fas yéene defee ci ñetti département yu nekk ci région bu Thiès Cheikh Lo référent technologique projet ëpp IT bu région bu Thiès. fii la ñu tàmbalee waaye bénéficiaires yi ñoo ngi ci Dakar ak Thiès te incha allah dinañ egg région de Thiès ngir ndimbal bi nga xam ne moom lañ leen jagleel ñu mën ci jot déjà dinañ jekkali fii Ndakaaru Ndiaye bu ñu fa parewee dinañ dem région de Thiès ngir mën a couvrir ñetti fa nekk département Tivaouane entreprise yi fa nekk li ci ëpp dëgg la ay jigéen ñoo ci nekk waaye am na yenn entreprise yoo xam ne góor tamit joxe nañ ko gën a yëngatu ci wàllu céréale bi lu ci mel ni defarum araw beeg sankal caakri waaye amaana ci tamit yoo xam ne ñoo ngi ci wàllu defarum jus yi ak ñenn ñu nekk ci transformation ndaamaraas bi waaw fi mu nekk nii ndegam corona bi egsi na li jiitu ci gàllankoor bi nga xam ne li seen liggéey bi jot na ko dund mooy que ne dafa wàññeeku lool ñëpp xam nañ ne que lu ëpp ci koom bi ndakaaru la nekkee donc bu fekkente ne yow li ngay defar pour mu egg si ndakaaru day xaw a jafe day métti lool ci ñoom ngir ñu mun di jaay seeni produits waaye nag taxawu leen moo ñu tax a jóg moo tax rek ñu ne dañuy ne yàcc saaral di leen di seetaan ci situation bi ñu nekk moo tax ñu fas yéene leen dimbal ndimbal bi ñaar lay nekk benn pàcc bi mooy xool lu ñuy def ba moytandiku feebar bii nii di corona ñaareel bi mooy dimbali leen ci wàllu koom benn enveloppe COPPA boo xam ne naan nañ leen ko jagleel ngir ñoom ñu mun a xool nu ñu mën a def ba suqali seen koom bi ba mun a continuer di defar produit yi ñu doon defar